ci yem parce que il faut que leneen yàqu fa parce que jëlmaan ni ñu la benn néeg bu def 300 personnes 200 personnes maanaam tey sa lépp nekk si biir bi tey kon tey bu ñu nee yàmbaa la ñuy ki nga xam ne jaay ñu defu nekk dugguñu si dara julli jaamu yàlla lañ fa nekkee mais bu ñu fuyaas fuyaas bàyyiwul kenn ñëpp lay ñë ñëpp lay yàqal war nañu xool système bi nan nañ koy gérer. ñoo joxe seen ardu bopp mais nañ xam ne li def du yëfu nit du yëfu jullit te képp ku ci faatu rek nañ xam ne ñoom am nañ boobu paar mais danañ yàq alal Germanie maanaam bu fekkee dañu jël fi di xool yamba wala nekk dugguñu si dara julli jaamu yàlla lañ fa nekkee mais bu ñu nee fouillance fees bàyyiwul kenn ñëpp lay ñëpp ñëpp lay yàqal kon donc mooy war nañu xool système bi nan nañ koy gérer ba du ba du demee nii quoi warul demee waat nii koy ñu ngi koy méttilu parce que bi muy naan bi muy renoncé maanaam euh, dafay aj élection yi amoon na coow métti bu amoon Rebeuss amoon nañ ci ay information même fee ñoo boobu dañoo sànni ay gaz lacrymogène ci biir Sambour lu tax garde saa yu amee. chambre yi ni muy xatee ñuy sànni ay gaz lacrymogène. waaw waaw waaw lu waral loolu xam nga tey man li nga li nga wax information bi sax tey la ma gën a leer si yow parce que du information yëpp da nga koy am mu amul benn affaire bu ñuy bàyyi ñun lépp lu ñu gis si prison du du du prison camp pénal wala 100 mètres wala Farba ma ñu concerné parce que ñun dañu yor association boo xam ne man nañ 400 et quelques personnes ñi ci am nañ jaar jaar ñii ñi si dëkk bi am nañ jaar jaar. kon donc mooy tey ñun bu ñuy wax dañuy waxee tur station bi dañuy waxee si li ñuy doxee parce que ñoom lañu représenté ñun rek newuñu fi ñun nag ñeneen ñoo ko bokk mais maanaam PC euh, rumeur bi wax nii si la commencé yi muy li ma wax rek kaso amul benn droit boo xam ne dañ la war a néewal doole complètement na am nga sa ak sa yelleef mais nekkul dama ne bu fekkee dara dafa xew si kaso rek ñun nañ bombardé kaso bi yëpp loolu laay ñaawlu tey tàngoor bu tàngoor bi ñu nekk nii kaso dafa doy sëkk on dirait nga dóor leen ay mais bu ñu nee am na doo ko weddi ndax tàngoor bi fa nekk sëg mën na rey nit. waaw dëgg la maa ngi ziar ñëpp di ziar waa Sénégal yëpp di ziar mbokk taalibe yi di wax jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba di ziar sama sang bi Serigne Mbacke Soxna Lo fa la mu nekk yàlla na ko fa yàlla defal ay xéewal yu bëree bëri ba ñëpp jariñu si képp ku bokk ci Daaru Xudoos ñu ngi ziar ñëpp ak képp kuy murit ak képp kuy jullit ñu ngi ziar ñëpp nag di baalu ñëpp àq ndax si tabaski lañ jógee. baalonte àq àdduna bi yëpp baalonte àq ñu ne ñu nekk ay nit yoo xamante ni nit yu yàlla baaxe la ñu am tuuti loo xamante ni rek dañ koy dund ak prisonniers yi di dem def ay visite di leen seet si xam nga lu yàgg sax ay quatre ans ñu ngi dem ay visite di dem ci prison yi muy Koutal camp pénal di fa gis lu ne di waxtaan ak ñoom ici quoi kon bu ñu xëyee ñu julli ba pare lendemain Korité lu mel ni am ba àdduna bi yëpp di ko seetaan fépp loolu dafa rafetul dafa rafetul quoi gar yi dañ si am ay mbokk am ci ay xarit détenu yi ñëpp ici nekk suñuy mbokk parce que nattu la yàlla moo koy teg nit nit a ngi ci biti sax fekk ci nattu la nekk nit nekk kaso fekk la ko fa yàlla yóbbee xëy na lu koy defar la quoi ñoom it li ñu leen di gën a wax rek nañu góorgóorlu xam ne foofu nattu la lépp lu ñu leen di tere rek nañ ko bàyyi ndax xam ne gar yi defar moo leen tax a jóg li tax ñu dénk leen foofu lii nag li ñuy gën a wax mooy ñun ministre bi la ñuy waxal man Ndiogou na nga fexe nga def tout parce que DAP bi dem na fa prisonniers yi neen moom soxlawuñ ko ñoom ministre bi lañ soxla te il faut yéen it ngeen di dem kaso président il faut ngeen di dem kaso yéen fa ngeen jógee xam ngeen la fa nekk yéen li àdduna wax ban tooñ leen ban yóbbu fa àdduna jël leen génnawaat leen jox leen réew mi am na ñoo xam ne ñu ngi leen fa tooñ ñu def fa ay ati at te amuñu ay mbokk yu leen lijjanti loolu nañ ci bàyyi xel li nga xam ne nag moo am campagnal kenn du ko rafetlu rafetul parce que tey jii ak gar yi lépp lu luñ mën a fa nekk te néeg yooyu néeg bu si nekk day def lu mu gàtt gàtt ay quatre-vingt-dix personnes quatre-vingt-dix personnes nag buñ nekkee ci néeg fuyaas am fa ñaar mën na fay def lu bon nga ñëw di fuyee ñooñu yàqale bagage yu ñeneen ñeneen ñi dañuy mer parce que toujours mba ci vitrine bi yooyu yëpp loolu moo koy indi loolu nag li ma ci gis man njóogu sama jàngat dafa war a deñ ndaxte prison du foo xamante ni day yàq nit dañ fa war a yóbbu nit ngir mu defaru mais mënoo jël ay nit dajale leen ci benn néeg lu mat ay cinquante góor nekk fa ñaari douze foo mënta jaar jàmb du fa am état bi na nga jóg jël si loolu jam ñaajo ñu ngi fay dégg ay koso yu ñu defar yoo xam ne dégg naa gendarmerie ñoo ko xale yi xam ne yàlla moo leen teg nattu ay doomi jàmbur lañ koo ci mën a wutal liggéey ñoom ñu dem ci tool yi bay ñëw jëriñ seen réew man loolu laa gis mais moment bii li am fële campenal ñaaw na rafetluwul xaw ma nit dee na ci mais ay lacrymogène waroo tëj ay doomu aadama mille personnes ay garde di xeex ak ñoom di sànni ay lacrymogène garde yi ici am na ci ñoo xam ne seen formation dafa des am ci ñoo xamante ni ñoom kenn formé wu leen parce que duñu ay nit mais garde yi nekk ay nit nekk ay ancien garde xam même su na naree am si prisonnier ak euh, garde ñoom danañ jóg tog ci seen jéego dox ba loolu bañ am mais xaw ma nag kan moo leen jox ordu am ñoom ñoo joxe seen ordre bopp mais nañ xam ne li ñu def du yëfi nit du yëfi jullit te képp ku ci faatu rek nañ xam ne ñoom am nañ boobu paar ñun nag président la ñuy waxal président na nga jóg nga jóg ci kaso yi kaso yi waxoon naa leen ko te dinaa ko waxaat li am camp moom moo am 100 100 mètres benn néeg day def ay 150 personnes ñetti douze ñoo fay nekk loolu nag boo leen fa jógul maternité bi amoon kenn ñaanu ko yàlla mais lu fa raw dana am parce que nit ñi ay doomu aadama lañ wasalaam ñi ngi ziar nag àdduna yëpp di jégalu ñëpp ah. waaw asalaamaaleykum waaw di ziar ñëpp quoi xam nga ñun suñu association bi dafa nekk association boo xam ni àndu gore la a bokk jaar-jaar waaw ñu nekk ànd ak suñuy grand suñuy rakk ñu xool ñun banlieue lañ dëkk ñu xool banlieue bi xam nga mu métti lool. xale yu ndaw nekk si koñ yi di buuju taalibe yi xam nga seeram day daw quoi xale yu ndaw yoo xam ne xam nga bëgg a dugg ci milieu bi waaw nga xam ne lii nii gaan soo ko bàyyee rek xam nga maanaam géejuwaay day dem ba yàqu du fii kese quoi ak caaro yi Pikine sam-sam fépp ah comprendre moo tax ñu waral ñu def seen association bi nii sant association bi ñoo bëgg ñun xale yi baax yaa ngi dégg suñuy jarbaat doom yi xam nga suñuy yi ñëpp ñu baax comprendre dem nañ dialogue ba waxtaan nan luñ fa waxtaan mooy bëri na comprendre comme genre solution yi rek la quoi comprendre comme parce que tout temps ki encore war a jàppale mais lu xew campanal gaar si boppam gaar ñoo tooñ c'est en deux parce que mënoo yow mënoo tëj nit ba pare nga koy sànni ay kii locomotion du yoon yaa ngi ko tëj am ñoo xam ñoo ñoo leen tëj bi ñoom du ñu génn da leen tëj foofu mais su tàqee sax ñoom du ñu mën a génn da leen ni ah yow comme ni nga ko yow néeg yi bëri ah ñii seen yoon nekk ñi dañuy ñeneen ñi nag xam nga ah mën nañ def loo xam ne loo xam ne nattu la san dëgg mais ñoom waru waru doxee noonu yaa ngi ñoom war nañ xam ñoom seen jarbaat ñoo fa nekk ak seen rak ak seen mag ak seen papa ñoo fa nekk waru réagir noonu quoi san dëgg parce que ñëpp ay Sénégal ay jullit leen comprendre mais xam nga yow yow da nga war a xëcc jàmm mais ñoom ñoo xam nañ ñoom ay jeel ma la dañuy jeg-jeg mer mais suñu meree sax yow nga dëfal leen loolu moo tax ñu yóbbu leen fa mais mais n'est jàpp di dóor di saaga di yooyu bul dóor bul saaga comprendre yow yow moom maanaam xañ nga ko liberté am lépp xañ nga ko ko comprendre mais mais sooy fuyaas nga def ndànk-ndànk xam nga suñu xawee réagir nga arrière ndànk bàyyi xam nga mooy yoon quoi man loolu gis quoi xam nga loolu warul daal daa xonu si loolu yaa ngi loolu président war na si jug isande parce que xam nga affaire bi ni doole bi nii si boppam dafa war a jug surtout prisonnier ñi nga tëj ba pare nga leen jaayaat doole xam loolu dafa métti tey tey tey fu mu leen indil añ kaa yaa ngi dégg añ du ku ñëw ñu la xam nga wax dëgg la affaire war a deñ Sénégal comme ni ko Ndiogu waxee Pambe waxee julli nañ julli bu neex macha allah nga xëy suba ñu la ay prison prison xam nga rafetul quoi yooyu nañ ko war a bàyyi waaw mais man si garde yi laa dal garde yi si boppam ñoo war a bàyyi def loolu yaa ngi dégg parce que yow da ngay jékki-jékki sax ñu nga nga nga kuul ñu woo tooñ la dóor fa xam nga du yoon parce que dañuy dañuy naan xam nga yow waroo wax dara quoi wala ñu dégg sa tur ñu woo la xam di la jaay doole xam nga te booy ay bañkat lan yaa ngi yow garde la sant tëj tëj tëj lañ la wax isaan dëgg yow ñoom suñu fanaanee benn jour yow yaa nga fanaan nga fa suñu fanaan fa deux yow fanaan nga benn jour si ñoom xam yaan seen dàll dàll ñoom dàll dàll dàll yi la ñuy jël yëre jelmaan yi la ñuy jël isaan dëgg jelmaan lu ñu fa am ñoom lañ koy jaay si yëre yu bu baax si jelmaan isaan dëgg gaar yi moom la ñuy jël kon na xam nga ñoom doono war a bàyyi jelmaan yi nekk seen jàmm ak salaam man Aliou loolu laa gis xam nga ñu may leen jàmm quoi comprendre waaw parce que loolu moom neexuma quoi franchement. dëpp jotoon jaar wala. waaw non foofu maanaam comme ni nga ko waxee xam ñun yàlla dafa def ni ba nekkee xale jot nañ fa jaar nii mais nekkul jaar boo xam ne dañ ma tooñ dugal ma fa. isaan dëgg foofu soo fa demee ñun fa tooñ dugal fa dafa bari yaa dëgg yàlla xam ne ñu fa tooñ bu dugal fa dafa bëri l'homme de peine yi comme ni nga ko waxee grâce su amee ñiy tëj 5 ans 15 ans ñooñu. comprendre ñu dam ñoo mérité grâce ñoo mérité grâce buñ koy wax mooy longue détention comprendre xeexul na koo xam ni bàyyi na la xam nga moo gën am solo te ñun bëgg xam nga vraiment président bi jug si bi jug waaw xanaa liñ naan rek lem moom yokku si lem nekkul pour mu neex xëy na pour mu sakkan la quoi sama gars yi wax nañu lépp man nag j'interpelle la président de la république Diomaye Faye Diomaye jaxaar fay parce que lii ngeen baal ma ci terme bi mais taat buy tàkk la te taat buy tàkk neexula wutal tubéy kenn rek moo ko mën a wutal tubay muy la président de la république son excellence parce que lii dafa yàgg bunduxataal yi gars yi ñi ngi wax am na ñi nga xam ne dañu am asthme ils sont asthmatiques ñi ngi ci situation yu graaw yu critique foofu te dama yaakaar tam bon prisonniers bu ñuy dugg briquette sax duñ ko yor te yow ñi nga xamante ni da leen di tëj ci néeg yoruñu dara yow nga yor say matériel dara warul la jaral ngay génn ay lacrymogène ay arme parce que ñi mënuñu la gaañ mënuñu la def dara te heure bii ñuy wax ni rentre nañ seen i kii kon coow li mënoon nañu fexe ñu ko maîtriser man may ñaan Diomaye monsieur le président Diomaye Faye son excellence mu indi ñu fa ki nga xamante ni dina attan nit ñi attan nit ñi mooy ku ci nekk li nga yooyoo ñu jox la ko. borom longu pen yi mënuñu leen jël jaxase leen rek beneen pen yu ndaw yi garde yi tamit mooy comme li ñuy wax rek dinañ la xool tooñ la te même bu ñuy fouillage du ñëpp ñoo tooñ mais ki nga xamante ni deful dara dul jaamu yàllaam la fa def di selal nga bëgg a ñëw tuur bagage am ñoom dañuy yee fitna parce que loolu mooy justice Sénégal pré monsieur le président de la république jaar nga ci xam nga xam nga ni fii dañuy jaay doole jaay doole bi nag man rek laa lay ñaan nga def ci loo mën pour mu jeex ci kaso yi. dëkk bi gëm nañ ni jaay doole jeex na fi mais fenn rek moo des mooy biir kaso te it kaso bi pour jaay doole gën fee jeex benn da ngay gis kaso boo xamante ni quatre-vingts personnes wala cent personnes moo war a nekk ci benn néeg ñu jël trois cent personnes entassé leen mais bu yàggee day xat seen nekkin du jaar yoon loolu laa amoon li nga xamante ni man moom laay ñaan monsieur le président de la république mu ñëwal ñu au secours ci nu mu gën a gaawee ci lii nga xamante ni moo am prison ñu dugg fa tam xool ñi nga xamante ni ay blessé lañ. ñu jël leen même pas infirmerie yi ñu yóbbu leen ci hôpital yi nga xamante ni vraiment dinañ jël ci ñoom seen i matuwaay wax dëgg yàlla parce que nit nit la te lépp lu yàlla bind doomu aadama moom moo si gën torture bi lañ bëgg mu jeex violence bi lañ bëgg mu jeex ci kàttanu yàlla. waaw bracelet électronique yi tamit vraiment niñ koy séddalee moom jaarut yoon. waaw parce que boo xoolee fii ku sa papa doomul dara wala yoroo xaalis du ñu jël bracelet yow di la ko jox bracelet yi business moom moo ci am yaa a neex ak maa la neex wala séddale bukki noonu lañ koy def dañu bëgg justice mu mu dëbu taxaw ba nga xamante ni ëllëg képp ku tooñ xam nga ne dañ lay teg yoon te doo ci mën dara say mbokk xam ko mais tant que justice bi mi ngi clignoter gauche di jàdd droite vraiment pour mu dëggu day jafe. te son excellence ma lay ñaanaat ñi ci kaso bi yow lañ gëm yow lañ yaakaar ma lay ñaanaat loo xamante ni da ngay def amnistie générale amnistie bi nag buñ koy wax mooy longu peine yi nga xamante ni ñoom ñoo fa tëdd ak ñeneen ñi nga xam ay appellant lañ yoo xamante ni seen i dossier kenn xoolatu ko ñi leen àtte woon amatuñu léegi dañuy tëdd ci kaso bi rek di xaar seen faatu loolu tam ñi ngi ñaan yàlla ci kàttanu yàlla président nga ubbi dossier nga xool ko kaso bi sonn nañ soxla nañ ndimbal wax dëgg yàlla soxla nañ ku leen jàppale vraiment ñun du ñu ñaan kenn ku dul yow parce que yaay jiitu yaay jiita réew mi yow yaay le gardien de la constitution ñu ngi lay gërëm nag monsieur le président di la sant te yaakaar ni suñu wax ji nii di ci dégg te boo ko déggee man gëm naa ni li ñu naqari ci biir kaso di nga ko faj parce que yow dëgg moo la fi teg te ci dëgg ngay dox ci kàttanu yàlla. porte parole bi moom dafa dafa xaw a tardé wala moo xaw a xoj nag ñu si cat bi boo ci mënee sànni ñaar kàddu rek xam naa waaw incha allah salaamaaleykum dañuy nuyu waa Sénégal yëpp di jël nuyoo bi di ko teg si loxo président de la république di ko wax ni na bàyyiwaat xelam moo premier ministre am ak état bi fi nekk tey ndax ñoom ñëpp jaar nañ ci nattu yi li waral suñu borom jaarale leen fa ngir ñu mën a xool xàmmee ràññee la di wax ni directeur administration bu bees bi garde capable na lu ne teg ko détenu ngir yëngal kaso amaana nag ñoom bu ñu mënul gere seen pénitence bi ñu indi laatal leen gendarme mu gérer leen ko parce que garde yi seen biir yéenante wu ñu jàmm te Sénégal fii foog naa réewum jàmm la effectif bi fi nekk ci ay détenus ak li fa nekk ci garde kon suñu borom moo si teg loxoom ñu ñaan yàlla mu sot si ndox bu sedd ñu xam ne jelmaan yi ay nit lañ ku demul dikkul luñ ko fekkee dikk ñoo gu fa indi ñun nag ànd gore boo ko jaar jaar. lépp loo xamante ne mën nañ ci taxawu détenu bi dinañ ko taxaw kon nag dañuy lancer un appel solennel au président de la république mu bàyyiwaat xelam rawatina ministre de la justice na bàyyi xelam directeur administration pénitentiaire na bàyyi xelam te xam ni garde dafa capable te garde yi seen biir yéenante wuñu jàmm lu doy ni bisu baalonte ak nga jàpp ay nit tuumaal leen ci biir kaso tuumaal leen ba pare war leen teg beneen nattu loolu das koy xoolaat kon Sénégal nañu xam ne sénégalais yi nekk si suuf ñiy souffrir métit bi ñi nga xamante ne bu ñu leen jàppee presse bi du wax si ñoom ñoom lañ nekk di toroxal ñoom lañ nekk di xoqatal ñoom lañ nekk di teg ay métit ay raccourcissement si biir néeg ci biir mbooloo loolu rafetul ay bal blanc di leen ko dóor rafetul di taal seeni laa di leen tuumaal yooyu noonu yëpp rafetul na gaa xool nu mu gën a rafete te xam ne fii réewum jàmm la réewum Serigne Touba la ñu dund ak loolu ak détenu yi te xam ni détenu ak ay nit lañ ak ak yelleef bi nañ leen ko jox ba mu mat sëk ñun loolu lañ soxla bañuñu nag ku ñu tëj mais tamit boo tëjee nit ki jox ko xam ak yelleefam ba mu mat sëk waaw. ñu bàyyiwaat xel ni Sénégal du ay détenu politique rek a fi nekk parce que chaque jour rek détenu politique yi la ñuy bàyyi xel ndax tey lii nii xew nii tey bu fa fekkoon ay détenu politique presse bi yëpp a ngi siy wax ñëpp a ngi siy wax kon yéen gàcce ngalaamaa yéen waa Sen Teranga quoi ñun ànd gore bokk jaar jaar suñu combat nag mooy xeexal détenu yi ñi nga xamante ne seen yaay ak seen i papa amuñu accès à la justice ñun ñi nga xamante ne yàlla jaarale nañu fa ñu xam yenn yi dinañ taxaw. waxal leen ko lancer message bi partout dans le monde lu ñu si fekk ñu xam ne loolu la kon alhamdulilah rabil alamin na gars yi bàyyiwaat seen xel gar yi nañu bàyyi di tooñ jelmaan yi ndax yàlla moo leen jox doole bu leen yàlla joxe doole nag ñu bëgg a jël doole bi di ko teg si kaw détenu yi day metti nag ñëpp bàyyiwaat seen xel jaajëf association bi mooy ànd gore boo bokk jaar jaar des ex détenus repentis waaw ñun nag ñu ngi woo état di woo administration pénitentiaire di woo ñëpp ci que nañu ñëw ñu xool nu ñu duggee waxtaan ak jelmaan yi nouvelle réforme judiciaire yi gars yi wax bénéfice yi nga xamante ni jelmaan yi ñu ngi ko doon am nañ leen ko jox ñu bañ leen ko xañ ndax lii mett na garde yàgg na tuumaal détenu di yokk ay kasoom te directeur yi du ñu xam nu mu demee kenn du xam nu mu demee na gars yi xoolaat affaire bi ku demul dikkul mënul indi dara waaye jaa ngeen jëf. merci beaucoup alors ànd euh, gore euh, bokk jaar jaar di association bi nga xamante ni dañuy xeexal wàllu détenu yi ñi nga xamante ni dañu fa nekkoon yàgg fa lool te ñoom la ñu dalaloon seq ak ñoom waxtaan ci fee bi nga xamante ni euh, je pense que ñëpp daal di koy dund ci suba ñu ñaanal ak jàmm am ci li ñu doon xeex boobu ba léegi jàpp ni dina jeex waruñu ko yeewaat ndax xeex bi presse bi xeex bi citoyen yi xeex bi détenu ñi doon xeex mooy àsak liberté am si ñëpp yow mi nekk si biir xëy na doo fa am liberté mais nga am si li nga xamante ni c'est le minimum te droits humains dafa am solo doomu aadama même boo ko tëjee tamit am na ay droits yoo xamante ni waroo ko bafouer ñi ngi euh, woo ki nga xamante ni mooy Seydi Gassama suñu papa mu jël xeex bi tamit euh, teg ko teg teg ko euh, fexe nu mu waxtaanee ak Bassirou Diomaye Faye ñu jël si ay réformes daar daar ndax nee naa la depuis 2021 ba nii ñuy toll loolu moo nekkoon principalu cause bi xeex bi li ko waral yëpp bokkoon na ci biir kaso bi bokkoon na ci injustice te injustice bi duggaat na ba ci biir kaso bi te waruñu ko eh, yeewaat ndax bu ñu ko yeewaatee xëy eh, na mën na indi neen te du arranger état bi nga xamante ni moom moo fi nekk di nuyu sama grand yi fi nekk yëpp macha allah